est-ce que mën nga ñu limal cinq yoo xamante ne nii. def na ko bi nga nekkee maire ak léegi. Mhm. def nga ko mu mën a doon cëslaayul ñu falaat la nga doon meeru Ndakaaru. yoo xam ne nag du lu Macky sàll def yow loo def la. <laughs> ah wala. <laughs> ville de moom dëgg yàlla lu ma leen fi wax rek moom ñun ñoo ko def. Mhm. Euh, damay damay commencer ci projet yu gën a mag yi nga xam ne mooy gën a ñu naan structurant projet structurant damay wax ci voirie bi. voirie bi. def nañ fi euh, ak BOAD benn prêt bu ñu BOAD euh, joxoon mhm. defar nañ voirie bi pour neuf milliards ba projet ba jeexee ville de Dakar dafa dugalaat beneen projet boo xam ne tey avant may ñëw fii dem naa Sacré-Cœur parce que fa lañ ko commencé commencé nañ defaraat tali Sacré-Cœur loolu pavage la wala tali. laa wax waxaguma pavage. ah mooy Sacré-Cœur mooy ci deux yi. ci biir quartier yi. Ah, foofu ci biir quartier yi biir quartier yi foofu am na foo xam ne commencé nañ ko tey yegg naa fa rapidement parce que dama doon romb rek gis leen population yi kontaan ma ne leen comme que kontaan ngeen rek man kontaan naa donc boobu itam c'est un projet de deux milliards et boo xam ne dañuy defaraat ci biir quartier yi xam nga tali yi biir quartier yi boo ci duggee am na tali yoo xam ne mhm. depuis indépendance ba léegi kenn defaraatu ko donc yooyu la ñu bëgg a seet ñu defar ko loolu mooy voirie bi damay gaaw parce que li ñuy def nag mënuma koo lim. dafa bari juróom la wax. juróom yi voilà beneen bi mooy éclairage làmp boo gis muy tàkk Dakar bu dul solaire te même solaire ñun def nañ ci tuuti bu dul solaire solaire moom état bi la mais ampoule yi nekk éclairage public yépp compétence su ville de Dakar la benn commune defarul làmp commune defarul ville de Dakar moo defar en collaboration ak les maires des communes. yéenay fay tamit courant bi. courant bi état moo ko doon fay ci temps Ablaye mhm. Wade lañ waxoon ñu koy fay mais lampe bu tàkk Dakar. Hmm. ñoo ko defar ñu ngi def relamping. relamping mooy lan ampoule yi ñuy changé waat ñuy defaraat boo xoolee euh, lamp à sodium yooyu yu jaune yooyu mhm, yëpp ñu ngi koy changé daf koy weex mhm. soo demee plateau booru boulevard de la république jëm grand théâtre gis nga poto yëpp dañ ko changé mhm. daf ko ay poto yu doore yu rafet yoo xam ne euh, vraiment c'est moderne d'accord lamp yi ak lan lampe yi après lamp yi pavage bi ngay wax usine bi ville de Dakar jënd na ko te ah. boobu itam damay remercier chef de l'État bi ngay wax ne mu ngi may jàppale moo ma jàppale ba ñu libéré xaalis boobu ma jënd usine bi donc usine bi nga xam ne dafa tëjoon boobu ba léegi bu soobee yàlla fan yii rek danañ commencé waat ci pavage bi. mu nekk usine bi <laughs> ñaata lañ ko jëndee. Hmm. <laughs> ay milliards yu bari lañ ko jëndee mais jënd nañ ko. jënd nañ ko li taxoon mu yéex dafa amoon contentieux yu ci nekk te loolu yëpp. dëgg yàlla levé nañ ko ah usine de pavage la tudd. fa la nekk ci route de Rufisque ci route de bi la nekk. Mhm. Euh, lampe yi toujours am nañ cinquante deux mille points lumineux cinquante deux mille ñetti at yi ma nekk man maa ci yokk pour mu ngi nekk cinquante deux mille vingt cinq mille points lumineux yokk nañ ko ci éclairage public bi. ville propre beneen troisième bi puisque cinq rek nga bëgg ma xam bañ ma falee dama ne man bëggatuma dégg ñuy lim ndakaar ci dëkk yi gën a sant ci àddina bi mhm. ma teg. le programme Dakar ville propre et ville verte ba ma ko defee dama oote tous les départements ministériels yi nga xam ne ils sont benn réunion boo xam ne ville de Dakar lañ ko def ñoom ñëpp ñu ñëw ñu ñëw ñu installé benn comité technique de salubrité boo xam ne les service techniques bu ville de Dakar ak les ministères concernés mm. environnement urbanisme ñooñu ñëpp ñoo ci dugg ñu teg comité bi commencé di liggéey boo demaan mercredi après-midi DST boobu mooy euh, bi nekk euh, Fass ñu ngi def réunion à 15 heures pour programme li ñuy def ci week bi te loolu li ci neexoon population yi ñoo doon am seen mm-hmm. ay set setal yu ñu bëgg a def ñoom parce que looy def nag ci désencombrement ak ville propre ak ville verte bu ci population bi doo ko réussir tout donc ñoom bu ñu amaan seen programme dañuy ñëw foofu mercredi après-midi ñu programme ak ñoom accompagner leen ñooy organiser ñu ñëw accompagner indi leen petit matériel indil leen ay camion ak ay peel mhm. accompagnement bi ànd ak ñoom. lii mooy sa bilan lii nga bëgg ñu falaat la ci. lii doo xaar ma pare. Mhm, ah. travaux yi yow lu nga ne cinq rek nga ma wax boo ma bàyyee ma wax la loo xam ne tey. beneen bi sur la santé. santé santé li ma ci def bari na xam nga hôpital Abass Ndao ville de Dakar ça dépend la ville de Dakar defoon nañ fa centrale d'oxygène def nañ fa. hôpital euh, ophtalmo boo xam ne nit ñu bari sax yëguñ ko la fa am comme matériel amul sax ci zone bi yépp très bien équipé centrale d'oxygène récemment jëndal nañ leen scanner xam ngeen scanner ni mu cher ñoom baissé nañ prix yi boo demee Abass Ndao mun nga def sa scanner te dépensé lu bari c'est moins cher à Abass prévoir nañ ren pôle mère enfant parce que fi ñuy dugal xale yi les prématurés là il y avait un problème d'espace donc la ville va mettre là-bas un pôle mère enfant loolu ci santé bi la bi Covid bi amee xanaa yëg nga li ma def. 100 millions ko. 100 millions non bi 100 millions bi du dara kooku ci force Covid laa ko versé. masque ak ceeb masque ak ceeb waxal ak diw. ak diw ak la dépense dépense diverses. produits sanitaires yi yooyu yëpp amul hmm. bi ñu ko defee. bi ñu tëjee école yi war ko ubbiwaat kan moo équipé école yëpp loolu gis nga xam nga man mu ñu may wax sax waxi bilan quelque fois du ma bëgg a wax parce que man li ma doon gënal nit ñi wax li ñuy def mhm. te nag boo demee ci école yi laajte danañ la wax ne ville de Dakar de bu dafuloon dana ñaaw ville de Dakar li mu def ci Covid bii pour xale yi dellu siwaat mun a jàng kenn defu ko ci lycée ak collège yëpp dañ leen équipé équipé ba équipé le privé en produits sanitaires en lave-mains en euh, bonbonne pour mettre de l'eau, se laver les mains, en masque. on a fait une caravane de masques de sensibilisation, un million de masques def nañ ko fi. hôpitaux yi récemment. parce que non jeexagul santé li ma ci def bu ma ko ça fait plus de 3 milliards qu'on a mis. donc ci Covid bi waaw mais problème bi mooy yow budget wu 45 47 milliards lañ la jox approximativement. waaw pendant ñetti at. waaw. budget boobu. Hmm. bu ñu ko doon xool par exemple li ngay fay ci salaire. waaw par chapitre chapitre chapitre est-ce que mën nga ñu ko diviser wax ñu lu nekk. ñaata nga fay def. non loolu mënu ma la ko wax fii mën naa la yónnee budget bi nga xool ko. gros gros chapitre yi laa <laughs> par exemple da nga naan voirie lii laa ci def. waaw investissement. voirie wax la 9 milliards waxaat la 2 milliards 300 xam nga ñaata kilomètre nga ci voirie. 9 milliards yi nga ne. ñaata kilomètre ngeen ci gis nga bii ñu nar a def nii bii bu mujj bii. on fera cinquante kilomètres bii. bële cent soixante sept kilomètres dont cinq kilomètres de nouvelle voirie. Mm-hmm. yu bees beneen bi cent cinquante sept kilomètres lañ. seen masse salariale maire bi ñaata la par mois. par mois on mais est trois cent millions nag ci budget annuel quarante sept milliards. waaw waaye yow damaa pare. est-ce que damaa pare. yow santé rek laa wax waxaguma éducation. non wax nga santé wax nga pavage. wax nga route. waaw wax na lamp yi éducation. éducation rien que pour les prises en charge on est à 2 milliards. prise soo xoolee de 2014 à 2000 kii on a mis 9 milliards là-bas ren ren rek 2021 on est à milliards de prises en charge scolaire sur la nationale et sur l'internationale. Mm. la nationale ce sont les écoles de formation école de formation yi boo amee. ba nga ñëw bëgg a métier ñu defal la prise en charge. dañ ko mujj plafonné sax parce que demande bi dafa fort sur l'étranger aussi on donne des prises en charge scolaires en France dans tous les pays. santé tam da ngeen di prise en charge lu bari. ah waaw waaw kay heureusement waxal nga ko sa bopp gis nga fi mu nekk malade yi ñu demee hôpital dañ leen naan dem leen mairie Dakar bu ngeen demee ñu jëlal leen ko li ñu ci def xaw ma nu mu toll. te commune dañ leen di envoyé les infirmeries les infirmeries pour les les écoles parce que ci écoles yi laa nekk ba léegi def nañ quatre infirmeries yoo xam ne infirmerie bu nekk danañ fa teg benn ambulance. pour polariser les écoles qui se trouvent dans chaque IEF quatre infirmeries sont en construction dafa ñu dara. mais est-ce que du sur les travaux waaye rek waaw loolu lañ wax de nee nañ moi je communique pas assez. oui loolu de lañ wax. Mm-hmm. quand même. nga yi. xam nga nekk fi travaux yi hôtel de ville dafa raatuñ ko. Mm. wala hôtel de ville neexu romb nañ fa. romb ngeen peinturaat ngeen fay dugg ngeen xool ko nee na peinturaat rek ngeen fa def. peinturaat dugal ci biir nga xool. dugal rek ci biir nga xool. ñaata ngeen ci def ci xaalis. cent millions. waaw oh, man daal gisaguma fa xaalis bi dugg. 45 milliards li ngay lim lii nii yëpp gisuñu benn. ci biir hôtel de ville am na beneen bâtiment R plus bu ñu tabax bu ñu inauguré temps yi hmm. ba léegi dafuñ dara. non waxuma defu leen dara damay laaj man damay laaj rek. dafa dafa paase delloo ko aussi dañ leen di envoyé. Euh, ay cas de malade. waaw commune dañ leen di envoyé ay cas de prise en charge. commune commune mooy maanaam ñoom parcelle ak ñoom seen. waaw dañuy à la ville. Mhm. dañuy yónni ñu jëfal leen. Mhm. fekk fa le maire envoie on fait des prises en charge. Mhm. yu bare. parce que am na tamit yenn yenn communes yi nga xamante ni euh, su ma jëlee par exemple kaw commune euh, bu bu parcelle ah je je sans pour autant ma trompé bàyyi ma wax parce que woon cinq rek la wax mais nag am na beneen bu am solo boo xam ne. mooy ma wax ko employabilité des jeunes financement des femmes. financement des femmes au mois de mai on a financé 3500 femmes pour un montant de 140 millions récemment la semaine dernière c' est 8027 femmes qui ont été formées parce que nag li fi amoon bu njëkk dañ doon financé noonu ma quand on s' est rendu compte jigéen ñi bu ñu leen joxee quelque fois dañuy dañuy xaalis bi day nax saay ñu ne balaa ñoo lebalati kenn dañ leen di former nu ñu leen di former on a fait avec benn ONG bu ñëw accompagner ñu dañ leen di former en création d' en éducation financière former leen jox leen diplôme bu ñuy génn ñu accompagner huit huit mille vingt sept femmes yooyu bu mujj bi ñu financé c' était à hauteur de deux cent quarante deux millions à peu près bu dul loolu sur les jeunes on a un incubateur à la ville de Dakar. Mm. incubateur bi euh, CPM e la tudd. CPM c' e est une couveuse d' entreprise foofu dañuy sélectionner des jeunes garçons et femmes. Mm -hmm. qui des diplômes qui n'ont pas de diplôme même fois dañ leen di sélectionné ba ñu créer benn plateforme boo xam ne kuy appliquer appel à candidature foofu ngay defee appliquer ñu sélectionné la jël la on a déjà sorti il deux ans une promotion de 40 entrepreneurs qui sont sur le marché maintenant mm-hmm. bu yàggul 50 génn nañ là on a lancé l'appel à candidature qui est clôturé d'ailleurs mm-hmm. et là on va former peut-être 100 à 150 parce que là on est dañu accompagner avec Euh, la ville de Marseille moo ñuy accompagner l'école des entrepreneurs du Québec aussi et l'AIMF mm donc ñooñu ñoo ñuy jàppale ci formation xale yooyu loolu on des emplois toujours nga ne defuma dara pour les jeunes ah, toujours déglu rek non rek danga may bàyyi ma wax na ah, ah, bàyyi ma ma wax nee nga yow milliards yi may jox lii ak lii rek nga def wax li ma def <laughs> xaaral ma wax ma ko les permis de conduire on a formé jeunes permis de conduire permis de conduire boo amee permis mën nga am liggéeyu chauffeur bu yàggul avec Evry ah nous avons formé ay décroché ay jeunes yoo xam dañoo décroché ñu forme leen aux arts visuels 60 yu ñu génne récemment je crois que parmi les encadrés il y avait l'artiste peintre Kassé qui les a encadrés ba ñu pare ngay wax defuma dara encore. la maison des arts plastiques bàyyi ko rek bàyyi ma ak moom rek. la ak maison des arts plastiques. bàyyi ouvrir en deux mille vingt mhm. ñu ngi ko tabax sur Malick culture xam nga culture tam waxuma ci la. culture on a le fonds d'appui aux artistes. Mhm. fonds d'appui gis nga bu njëkk cent cinquante millions la woon. bi Covid bi ñëwee on a un peu diminué. Mhm. et fi mu nekk chaque année te loolu ñun tànn ñu de. c'est un jury indépendant formé de professeurs d'université ñooy recevoir dossier yi sélectionné tànn ñi ñu ciy tànn ñu financé leen. nga ne ba léegi ñu daal place de l'indépendance ñu ko aménagé ah? moom c'est la maison des cultures urbaines xam nga foofu. bi nga Guédiawaye. non non fii à Dakar. ok au centre socioculturel de Ouakam. Mhm. demal foofu nga xool. et foofu nag j'en profite pour féliciter les jeunes qui gèrent cette maison parce que nag benn yoon lañ ko jox des fonds quatre-vingts millions je crois. defar na ko ba mel ni panaan pour vous dire que on a des personnes des ressources humaines qui son vraiment qui font l'exception à la ville de Dakar on n'a que des gens qui savent bien travailler oui. toujours puisque on y sur le social le social lu ñuy def yow wax nga ne ay prise en charge yu bari ñu ngi koy def sanitaire mais des na waxuloo ci secours tabaski waxuloo ci secours korité yi waxuloo ci secours exceptionnel yi waxuloo ci secours paak yi loolu yëpp ville de Dakar deful dara ah Makumba nag yow nag. non mais man yow nag vraiment musuma wax defoo dara sax bu ma ñëwee sax. Ah. a ah, man dama defoon sax bu ma ñëwee dañ ne ah daal tey man rek maa fi ci plateau bi ah kii daal danaa xaw a. mais mais ah. may attaqué nii. mais nag tey damay xuloo ak yow. mais par contre lenn lenn loo xamante ne man tamit euh, euh, il faut que ma sànni ko si par rapport euh, à la place de l'indépendance l'aménagement. voilà parce que vraiment suñu doom il faut que am espace yi nga xamante ne dañuy dañuy dañuy jouer l'autre jour ma am na ñu ma fa joto yóbbu mais xale yi dugg ci biir euh, jeu de lumière yi vraiment c'était c'est c'est bien ah, et ah, puis des places comme ça oui oui je pense que il faut que ñu koy gën a mën a ñoŋal euh, ci ci ci mairie bu bu Ndakaaru parce que xale yi soxla nañu tamit fu ñu foowee xaaral ma wax la wax ma euh, xam nga bi ma ne Dakar ville propre <laughs> ah, ma commencé woon nag di aménage nag rond point yi nag daal di defal sama rond point place de la gare. mu mm, jekk mm, mm. gaa ñi ñëw waa ministère bi. Karim Fofana à l'époque Karim mu ñëw buddi ko buddi. ni moo koy ñoom nee na yëgu ko ah. mu mu ñëw mu ñëw dindi ko defaraat ko. ma ne waaw. xam nga man du ma xëccoo man. man comme comme on dit man nitu jàmm laa ma xëccoo. ma ne comme que ñun population yi rek la ñuy defaral te ñoom dañoo bëgg defar ñu ngi xëccoog man rond ma bàyyi leen rond point ma dem dugg ci quartier yi. ma dem dugg ci quartier yi commencé di defar des charges dans les quartiers. malheureusement des désencombrement beeg Covid bi ñëw ak yooyu yëpp ya ça ralentit les choses mm-hmm. mais place de l'indépendance maa ko defaraat mm-hmm. duñ ko wax. Mm-hmm. en place de l'indépendance am na ay temps ni meloon moom jaaduwul. mais a reverdi. parce que ba ko jën farba di xëccoog Khalifa Sall. voilà voilà mais man je dis je vais rafraîchir parce que projet bañ fa amoon c'était tellement beau. les enfants aimaient mais xëccoo xëccoo xëccoo ba mujj ñu réaliser. mooy parking bi. waa bi waaw parking souterrain lañ fa naroon def am waaw. Ah, xoolal fi mu nekk au moins y a de la verdure y a des bancs les gens peuvent. venir a de la lumière a de ah, yow xam nga yow yow au lieu sax nga encouragé ma tuuti félicité ma xam nga jéy na ba mi ngi naan dem na place de la rek bien sûr dem na gis na pavoisement bi ah yow sax au lieu sax nga ne ma vraiment jigéen gis naa lii gis naa lii nga ni ma attaqué rek non attaqué wu la soxla si attaqué wu la defoo dara <laughs> dama lay laaj waaw ni ngay may laaje nag moom ah, ma jaaxal ni may kii daf lay kiiwal mais jàppale leen aussi ci yi euh, tamit il ngeen jàpp jàpp ci bu baax a baax parce que les enfants ont besoin de ça suñu doom yenn saa dañ leen di yërëm bu ñu bëggee fooy am fenn fu ñu fu ñu nooyee tuuti euh, duñ ko am euh, y en a y a pas assez d'espace peut-être ci plan directeur ci wàllum urbanisme peut-être il faut ñu ñu ñu koy gën a xalaat pour may njiiti daal espace yi nga xamante ne xam nga jéy na ba avant l'acte 3 on travaillait en parfaite intelligence avec toutes les communes mais nag acte trois daf ñu xaw a tooñ tuuti. parce que hmm? depuis acte trois am. Hmm, ñu ne c'est des maires de plein des communes de plein exercice. Hmm. quelquefois. il y a un petit peu de des blocages des des blocages. Euh, da ngay bëgg a def dara bon affaire maire la daal loolu mais mais loolu vraiment pour que. qu'on ait une belle ville. Mm -hmm. de l'harmonie dans tout ce que nous faisons. il faut ñun entre maires ñuy demalante di waxtaan di defar ensemble nos projets et c'est ça vraiment que nous devons faire et je pense que les gens l'ont compris te danañ continuer di liggéey en parfaite intelligence pour que commune yi yëpp fu ci nekk ville bi di ñëw di jàppale parce que communes yi aussi xaalis bi ngay wax ne sa xaalis bu bari bi ama damay dem ci commune yi di liggéey ak ñoom xanaa gisoo terrain yi terrain multifonctionnel yi ñuy def. Hmm. on en a fait un à Castor on en a fait un autre à à, à la Médina ça va démarrer bientôt hmm. il est prévu un autre aux HLM yooyu bu ma koy def ak maire commune bi laa koy def. bu parcelle bi yéen a ko tabax. non bu parcelle bi du ñun. boobu je pense que c' est. ou bien l' État. c' est Moussa euh, euh, mooy doog a jot ci kanam danañu dem fekki Mamadou Ndiaye ci question d'